dialogue nationaux Sénégal amal na ci lu bari waaye liy tukkee ci yooyu les dialogue dañoo mës di ko jébbal njiitu réew mi Macky Sall waaye tey solo si yooyu les waxtaan jur na coow ci atum 2016 président Macky Sall dafa dal di jëloon dogal institutionnaliser jaloog boo xam ne jàpp na ne dana koy amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai at bu yàlla sàkk ngir waxtaanee ay mbir yu am solo ñeel askanu Sénégal beneen jaloog ñu amal ko ci atum 2017 naka noonu. 2019 yooyu lay dialogue tollu ci ñett juróon na yaakaar ci ñiy yëngu ci langue politique bi ba tax na sax ñu ëppoon ci kërub kuje gi bokkoon nañu ca waaye fan yi ñu weesu ñu gis ni actualité politique bi wootewu njiitum réew mi ci beneen dialogue politique moo ci gën a fës waaye ana lu tax ñu war a amal beneen dialogue ndax gënu yomb rek ñu dal di dëppook texte yi maanaam constitution bi te respecté lii di calendrier républicain bi bu ñu dikkee nag ci dialogue yi fi jot jaar dañuy gis ni lu bari yi ñu tënkoon ci yooyu lay dialogue kenn tënkuwu ci ci atub 2020 ñi nekkoon ci boobu la dialogue politique dooraatoon nañu seen liggéey ginnaaw ba ñu toogee lu yàgg ndax mbasu Covid 19 euh, commission politique bu dialogue national boobee dal di jeexaloon euh, phase bu njëkk ci yooyu lay liggéey euh, tax ñu amoon ñaar fukk ak ñetti point yoo xam ne d'accordoon nañu ci ñaar yoo xam ne amuñu ci ab déggoo ak juróom mbir yoo xam ne dañu ko tegandi woon. ñu loolee lépp nag ñu dal di koy dëxën ci ab rapport jébbal ko njiitu réew mi Macky Sall beneen point bi nga xam ne d'accordoon na ci mooy fichier électoral bi yombal askan wi ñu jot ci ba noppi mën ko contrôler waaye njiitum réew mi ba tey jëlul benn décret boo xamante ne moom mooy jëmmal boobule contrôle ba fi may àddoo nii amul benn mesure bu ñu jël ci wàllu woowu lu ñeel point yi nga xam ne nag juboowuñu ci woon bokkoon na ca boole doon njiitum réew ba noppi doon njiitu parti ñu dal di dakkal wala ñu dal di indi ay coppite ci mbirum parrainage yi taxawal ab kilifa boo xamante ne du bokk fenn mu dal di yore organiser lii di ay élection bu ko defee ñu mën a amal tamit bulletin unique waaye commission politique bi ba tey taxawaluñu ko ba noppi ay yéex-yéex la ñu nemmeeku ci jëmmal yooyu les conclusions njiitum réew mi Macky Sall ci fanweeri fan ci weeru mai mu dal di amalaatoon jaloog bu mujj lu ñu mel ñu amal ko ci diirub ñaari ayu bés benn xaaj bi ci kër ku gi sax ñoom dañoo geddoon boobu leen ndaje li nga xam ne nag moo ñeel question politique yi commission bi amoon na fukki poñ ak ñaar yoo xam ne déggoon nañu ci ñeenti poñ yoo xam ne jubóowuñu ca ak ñaar yoo xam ne dañu ko tegandi woon li ci gënoon a fës mooy fexe ba ñu xoolaat procès wu Karim Wade eh, dal di modifier code électoral bi nga xam ne dina may candidat yi nga xam ne justice da leen a daanoon njiitum réew Macky Sall gracier leen bu ko defee ñu mën a bokk ci élection présidentielle bu février bii loolee nag ki ma mu gënoon yitteel mooy Khalifa Sall ba la ca gënoon a fës mooy ñetteelu mandat bi boobule poñ nag njiitum réew mi Macky saal ba muy jàkkaarloog askan wi dafa diggee woon ne du bokk ci élection présidentielle yu 2024 waaye ñu gis ne ba tey mu ngi ci bopp pouvoir bi te fas na ko yéene wëyal fii ak fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 ndax boobu boobule dàkkandi élection dafa am ginnaaw bi nga xamante ne PDS dafa sàkk ñu dal di taxawal ab commission d'enquête boo xam ne dafay indi ay leeral ci tuuma guerre ci ñenn ña nekk ci conseil constitutionnel beneen débat boo xam ne rek dafay ñëw moom itam mujjee comme yi fi jotoon a am